ñu dem bët saalumu Sénégal dëkk bi di Mandina Mankaañ weeru ut ñoom nekk na fàttaliku bu tiis ci ñoom ba ndaxte nag ñu ngi wéyeek loolu ci jamono ji ndaxte nag ci atum 1997 weeru ut lu tollook ñaar fukki soldaaru Sénégal waa rébellion MFDC dañ leen fa defoon dëgg sërëx maanaam embuscade ba faatoon leen lu ni mel nag sax sa gox ba tamit dund ga jafe ndaxte na ko wàllu wàllub mine antipersonnel ya teew na ko ca suuf sa ak leneen moo di ñibbisi bi dara jafe loolu tamit ci askan wi nga xamante ni ñoom dund gu jafe lañ fay dund ca Mendina Mankaañ reportage su Cheikh Tidiane Cissé ak Kaba Cissé. fukki at ak juróom a ngi ñaar fukk ak ñetti militaire yi bokkoon ci corps spécial bu armée sénégalaise ñàkkoon seen bakkan fi nga xam ne Mendina Mankaañ nekk ci département bu Ziguinchor ñi leen faatoon bokkoon ci ñi nga xam ne waaye fépp Casamance yi mu nekkoon fukk ak juróom-ñeenti fan ci weeru août ci 1997. ngir ñun ñoo tax ñu dee parce que ñun bu ñu fi nekkuloon ñoom du ñu dee dafa naxari trop lu tiis la saaye bu ñu eggee ci fan bi ci mois d'août daf ñuy fàttaleeku lu bëri. balaa boobu nag mu nekkoon ñetti fan ci weeru août askan wi yeewoo ci Mandina Manka ñoom jóge nañ fa li ko waral moo di rek xeex bu amoon diggante way fipp yi ak ñi nga mooy larme sénégalaise. ñi dem làqu ci Ziguinchor mooy làqu bu am ay jafe-jafe. dañuy daw fii ak benn sœur benn sœur boobu dong ana sa mbokk yi ñu abal yi ngay wodu de mais boobu rek la ñuy joge fii moo nekk comme suñu abi dund bi dafa métti parce que lu nekk di ngay jënd sa mbokk la mayee un nga sombi ko ngeen naan ko yenu ak moom ngoon ngeen tëdd ni mag yi am na ñoo xam ne seen doom yi ñu ngi foofu gaañu nañu fétiche yi ñu bàyyoon fu ñu doon dund di dem di ñaan ñaanatuñu fa loolu moo andi jàngoote yu bëri ba mag ñooñu dem. dellu siwaat bi nga xam ne askan wi tàmbali na ko dellu ci Mandina Mankagne taxul ñu jàpp ne rek seen xel dal na. nawet bi ñu nekk nii kenn ñemewul dugg ci biir lu béy xanaa alentour fa la ñuy béyee. fii de miin yaa ngi fii ñemewuñu dugg ndaxte xamoon fi ngay dugg ndax am na miin wala amul miin. moo tax dañuy limité wu ci alentour kër yi rek pour mun a liggéey foofu amuñu accès ci àll tool yu mag yi pour mën a béy. xanaa insécurité euh, kii bi dëkk bi. ñi fàttali kon ci kër yu yëpp nga xam ne fekk nañ ko ci Mandina Mankagne ay jigéen ñoo fa nekk ñi nga xam ñoom ñooy chef de ménage li ni mel nag dina bu baax li nga xam ne moom mooy jafe-jafe yi nga xam ne askan wi ngi koy dund te Mandina Mankagne